bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm atte bor fay bor bu tollook ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci suñu xaalis moom la kile di soxna Momy Kébé yoral waa ju ñuy wax Abdoulaye Sylla ba waral juge bi dal di mujj bloqué ay kontam jël àllam yépp tëj ko ràpp li gën a tuuti lu ñu mën a wax ci mbir mi mooy kile di soxna Momy Kébé jamono ji mi ngi ci jafe-jafe moom doomu ndem si yàlla njuga Kébé jamono ji mi ngi toog ci xotti nen ndax mel na ni sañ-sañ gi mu amoon ci alalam yoon nangu na ko donte jotoon naa dem ca yoon ngir ñaxtu ak sàkku ngir ñu daldi teggi loxo ci alalam ji ñu dankaafu bu ñu sukkandikoo ci journal Libération juge bi dafa mujj bañ requête boobule teg ca daldi santaane ngir ñu wóoyal topp giñ ko doon topp boobu boobule ndogal mu ngi tukkee ko ci bi ci fanweeru fan benn weeru ut gi ñu génn la juge ba digle mooy ñu daldi teg loxo bépp compte boo xamante ne ni kilee di Momy Kébé jotoon na ko am ci banque yi ci réew mi bu ci mel ni SGBS Ecobank ak CBAO ci fàttali l'homme affaire bi di Abdoulaye Sylla dafa sàkku woon ci yoon ngir ñu teg loxo lenn ci alalu kile di Momy Kébé ginnaaw si nga xamante ne jotoon na ko yoreel ab bor bu ñu xayma ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci million waaye mbir mi gën naa diis ndax bu ñu suttandikoo ba tey ci bile yéenekaay gannaaw ak teg bor ba ci diggante ñaari soxna Momy Kébé waroon na tegaat ca boobule bor ab ndàmpaayu fukki million ndax yéex a fay ji ak bañ gim ko bañoon a fay na am sax meloon na ni ku koy jaay doole lu ci mën di am daal Olof Njaay nee na ak teg bor fay la kon nag si yàlla milliardaire bi di njuga Kébé war naa fay naar bi xoromam ndem ni ko nasaraan si di waxee rendre à César ce qui appartient à César jërë ngeen jëf Tactic TV mi ngi leen di ñaanal jàmm